Bordeaux a ko sax su dee li muy woon dëgg. Gris Bordeaux da koy rey de. yow yow amul <laughs> Gris Bordeaux fu muy jàpp rek